Bienvenue sur Salam Vision. Ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdi wa sukri liman kulli bi'i sara. Luhuri dan dun suqtin inda sarsara. له يا دي يا مباشر جاء لجاء أقل من لله غل جاء ربي بما يزرع الأذان قد فجاء بجاء أقل من لله غل جاء أمني الحلوى قد لجأت بالقربان ربي المعين هلت ناسيا وزاسة اللعين دعوت بالقربان ربي المعين ملأت ناسيا وزاسة اللعين دعوت بالقربان ملكتنا سيابة سبتنا من أرس من تجاوز دجل الجنان فزاد لي هوى ولي سفى الجنان ولا نيل الأبرار في أغرايا وانخاد لي بلا انتهاء خرايا رفعني إلى الجنان جيمه ولي سوى يسوع رجيمه ترجعني العين والفجار كون البديع عالمي نجاري أغرب من البديع بالكتاب وسانني عن جانب الحتاب لم ينهني إلى دخول الجنة خير البزارة علي سلمنا لم ينهني زج ولا وعيد وعمري إلى الجنان عيد أفلي سرا مسون له حبا ولا إله إلا الله هداني الله وإنه البديع وخادني له بي أنواع البديع برأني خالق من سواه وخادني من لا يرى سواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت نرسي عن الأقدار والمفاسد سلامتي من جالب اللفاسد أكرمني الله بالإكرام لتروى ولي خاد الله وما الراهبات ذي الجلال والإكرام لخالدت مراهب الكرام إلى يا غاد له ما لم يكن ولا يكون أبدا للممكن لا سأشك أبدا لكوني جرى البديع عجبا للكون إن الذي من الإله حسن هبا عن الكون وفيه فزت دلاني الله على الله بلا تحرري وأمري تقرر قبلا هبلت يا ما خسادي مسمني حسبلا كسادي وغني البعيب سبورا تجارتي لدي لن تبورا لم ينوني مباء الله فضلا ولا إله إلا الله يقول لي بلا انتهاء زمني من كان لي ولي ساف زمني جاود ربي بلسان عربي بلا نهاية وتابخ الربي ربي نزال الإسلام عند خربتي لدى الجزائر منير تربتي نضي علي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب أزل ما ثبت للمصطفى أنا يميني عن أزن ومدفعي هداني الله وساس علين إلى سوى أمري فزمعين هداني الله وساس علين إلى سوى أمري فزمعين جميع الناس صراط المستقيم وبصغير كلنا بلا سخيم اهد جميعنا صراط المستقيم وبصغير كلنا بلا سخيم لك الكتاب يا غريب يا مجيب يا من به لزمني خير العجيب هب لي وللذين خاتلوا يا هدى به لخير تبلغون اياك نعبد ونستعين فانك المعبود والمعين من به يدعو له كل نخيب يا ذا الصراط المستقيم من قبلنا هدى به يحبطنا من قبلنا يا ذا الصراط المستقيم من قبلنا هدى به يحبطنا من قبلنا اللهم من كل كريم أكرمه منامه هذا له تكرمه عزم له كل كرم إيماني ولازم لساني رحماني وجوب بالشكر بلا كفراني تفائز أبوما نيراني وجوب بالشكر بلا كفراني تفائز أبوما نيراني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا وجلنا البيخان فكفنا حينما ألف البيخان وبيننا وفي المال أولادي يا مالك العباد والبلاد وباركا في نوازي أمرنا يا مذيبا بخيرنا بدرنا أن نستجب يا خالق الكبار وجملة الزهار أنت الباري وهب لنا ذرية تديم على ملا سلخ يا خديم وهب لنا فتن تديم على ملا سالخ يا خديم وهب لنا ذرية تديم على ملا سالخ يا خديم وهب لنا ذرية تديم على ملا سالخ يا خديم للعادة الأجور والمصال وبالشيء والجزل والانتصال يلا يا لفر لك سيداني تقبل يوم سبب في الجنان la ilaha illa la woowee waa kër gi ci maay bale kër gi maay ménage kër gi maay defar kafe gi maay togg maay yàq ndax tey dama am gan yu riche waaw dama am gan yu kawe gan yu mag dama am ay taalibey Seexul Xadim ay murit ay Baay Faal rijaalu Bamba yu ma ñëwal te loolu yombul te nag bu léet ndax bi ma nekkee fii ba tey bu dul ak tudd maa ngi koy doog a jël daayira mën naa koo wax bi ma jëloon muy bu alxames bi kër Mamor laa ko defee woon boobu it nii la meloon rek taw féexe lool fii nag daanaka maa ngi ko fii doog a indi kon sant naa bu baax sant naa murid yi Baay Faal yi santati naa bu baax a baax a baax a baax euh, di tudd ñaar tamit ndax ñoom it dañuy kenn ci man ndax olof dafay wax lu yàgg dëgg la te ay kilifa ci biir kër gi di ay mag euh, muy sëñ Seexuna Seega ñu gën ko xam ci Seega ak sëñ Saam ndax dañuy kenn duñu ñaar duñu ñett ñun ñooñu ndax lépp loo nga xam ni sëriñ bi mës na koo bëgg rek danañ ci waxtaan te buñ ci waxtaanee suñ jógee buñ ci nekkee lépp ndam lay doon kon ak cant lawaat bu baax Euh, di cantaat bu baax euh, ñoom sëñ Cheikh ñang ñoom sëñ fàllu sama gaa yi ñooñu rek nga xam ni ma leen koy waxee lu luñ def ma ne leen rafet na may leen ma ko ndax bëgg lu baax Baay Faal yi nag moom cant gaa ngi ñun ñoom su sëriñ bi bégee su ndongo yi béggee rek ñoom bégg nañ ndax loolu rek la ñu yittewoo di yëkkatiwaat kàddu ci daayira bi ndax nii rek lañ ko bëggee ni ko jëwriñ di soññee saa su ne teel a ñëw sol laxasaay yi man de kenn ku ci nekk ci yéen bi ma ne la tegg bët sama xol sedd na benn ci profil bi maanaam ci colka gi waaw ndax nit ku nekk dayoo bi ngay doxee ñi la fekk si ñoo koy wane te ku ci nekk ci yéen ba ma ne la tegg bët sama xol sedd na man ndax benn ni ko sëriñ bi bëggee yaramu kallaa ni ko sëriñ bi bëggee ngeen ko defee laxasaay bi jekk ku leen gis bëgg a mel ni yéen te bëggu leen mel ni kenn loolu nag ak sant yàlla la nii képp la ko sëriñ bi bëggee li sëñ Fallou waxoon defal profil yi ba ku ñu séen bëgguñu defar jikko yi nag ba ku jaxasoog ñun di ñu namm kon maa ngi leen di seedeel ne sama xol sedd na yàlla na yàlla fay <coughs> euh, biñ ko jëlee nag li aale waxoon rek la ñu waxaat ndax nit ñaar rek nga am ñi nga nekkeloon ñu jóg fi ak ñi nga nekkal ñu des fi ñi ñu nekkaloon ñu jóg fi lépp lu ñu fi jàng ci xësida tudd ko yàlla def ko ay salaatu alal nabi jàng ko alxuraan yàlla na yiw wa fekki leen ñoom ñëpp nag sans exception suñu waajur yéeg suñu goro yeeg suñu mbokk taalibe yeeg ñëpp rek tout le monde ñun ñi fi desit yàlla na borom bi wàcce barke bi ci suñu kaw yokk xéewal yokk wér bu kenn feebar waaw bu kenn feebar dégg nag la laaj maanaam bu kenn jàmbat te xam ni lu dal nit rek suñ borom moo la ko teg te bu waxtu wa jotee dana la ko teggi kon loolu bu kenn tawat na ñëpp wér bu kenn ñàkk na ñëkk am waaw xéewal gu bari saawaan baawaan ànd ak wér ak i xéewal di bég tamit bu baax ci ñi ma dëkkal muy waa kër gi ndax ñoom it bi ñu yëgee ni damay def daayira ndax man du ma wax dara jàpp nañ ci bu baax waa niñ ci jàppee mooy seen doole ak seen xel ak seen yéene ak seen xalaat bu rafet kon ñoom it jaa jëfati rek ñoom ñëpp sans exception euh, bëgg nag euh, mu neex ba ñu yëg ko dama bëgg li des ci poos yi man nag ni ma koy waxee duma woo kenn parce que kenn ki may woo mooy ñoom ñëpp man maam Cheikh Oumy rek laay woo addiyee maam Cheikh Oumy aca na ñëpp làmb poos yi ko defee ñu joxe ko mu bari ñu dugal ko ci <clears throat> kees gi moom laay laaj addiya maam Cheikhou mi bisimilah waaw nii la de ay këyit rek mu ngoog nii rek waaw góor waaw. waaw ñun mooy suñum sëñ Touba mooy suñum sëñ Fallou mooy suñum maam Chebra waaw mooy suñu lépp rek mooy suñum Soxna Awa mooy suñum maam Jaara mooy suñum lépp waaw moom rek moom rek acca acca murit barke Cheikhul Xaddi acca murit waaw góor neex na de waaw góor sant nañ nag bu baax wax dëgg yàlla sant nañ bu wér a wér waaw ndax nit li mu am su ko ñëwalee bu dee ku nite day sant sant nañ bu baax yàlla bu kenn jaaxle yàlla bu kenn jàq waaw yow sant nañ bu baax. waaw sant nañ bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw sant nañ bu wér yëg nañ ko bu baax a baax a baax waaw ay murit. waaw ayca ayca murit. waaw góor waaw ak tout tànk bi ñëw ak yëpp waaw boo ko joxelee de bu ñëwee bii paa seen naa Issa lay tudd dóor ko <laughs> dóor ko rek waaw ah. <laughs> waaw di di sant it sëñ Maxtaar waaw ndax euh, biñ ñu joxee yëf yi dama ne ko man pay bi daa seer de te yoruma dara <laughs> yoruma dara de Maxtaar yaboo ngi indi rajo yi rek kii mu daal di koy indi te xam naa buy demit da paasaat rek Maxtaar dégg fexe mu dem waaw kay waaw noonu la <laughs> wallaay ñi ñi am benn soxna te bëgg ñaareel yàlla may leen ko ah ñi amagul am ñi am ñaar bëgg ñett am ndax soxna yu bari wërsëg la soxna yu bari wërsëg la waaw doom yu bari it wërsëg la ma nit ngeen ñaanal ma <laughs> yàlla guddal fan yi te wéral cër yi waaw te te yàggal fi soxna si waaw yàggal fi soxna dellul laay bañ hmm? dellul laay ba jëwriñ dellul laay bañ ñu bis yi muy la grande journée culturelle et religieuse bu Cheikh Momadou Fadal bi nga sëñ bi da ko doon def at mu jot Euh, at yi weesu tawat bi dugg ci jamono tax defe ko muy Covid 19 bi yàlla teggi ko jàmm nag mu gën a set wicc ci àdduna bi ci suñu réew mi ci àdduna bi su ko defee ren jàpp nañ ko le 23 juillet incha allahu rabbi ci grand théâtre bu dakaar ñu bëgg nag <clears throat> bañ ciy doog a jëf yaakaar naa ñun 300 lañ ci jëfoon xaw ma yaaramukallah ñu daal di ciy jëfaat téeméer téeméeri junni. bi paase ñu jëf ci million ak lu teg ren dañoo bëgg jëf ci ñaari million ak lu teg mën nañ ko waaw mën nañ ko ndax ci 300 lañ tàmbalee woon ak sëñ bi jëf téeméer jëf million bu teg kon bu ñu bëggee ñaari million mën naa am beneen bi ci toppit waxoon naa ko Moodu ñun ñëpp muritu Bàmba yëpp bu ñaw bi doonul benn motifu laxasaay bi doon benn ñi bëgg bàyyilaat ñaw bàyyilaat ñi bëgg turki ñaw turki mais loolu na ko ñëpp waaj te ku ne tàmbale koo daasal ren moom ñun ñëpp vert blanc waxuma sëriñ si de mais en commençant par jëwrin aas papa Babacar Seck ñun ñëpp ku ci nekk li ngay sol vert blanc lay doon na ko ñëpp waaj kon ñu xam ni ñu nit loolu rek la ñu am waaw xamee njaboot gi te loolu da ci am solo su ko defee dina nekk benn motif dinañ ci waxtaan ak Modou mu waxtaan ceeg ñim ci war a bokkal ñaw ñëpp am na ci ay avancé ñoom jëwrin Issa su ko defee ñu créé benn motif ñaw ko ñun ñëpp ñu bokk euh, ñu bëgg près du corps def près du corps ñu bëgg waa bàyyi laat ku ne li nga yëg rek mais mu doon vert blanc waaw li li waa ji wane ci kii bi mu ne euh, kii bi seen tegale yu bëri xanaa du ngeen yëg tàngaay <laughs> waa ji na ko mu ngi noonu waaw ñu bëgg tegle tegle waaw ñu bëgg benn ak silenement def ko loolu la rek ñu jaamu yàlla loolu la du dëgg xalil waaw ah, kay kon addiya ji kii na waaw yàlla nañ ko teewewaat déwén déwén déwén déwén yu baree bari ànd kook wér ak xéewal man daal sant naa waaw sant naa bu wér ndax man awma lu dul muritu bàmba yii yéen laa am waaw li tax nag mag dollee sant ku leen gis dana bëgg mel ni yéen waaw loolu moom bir na ma man waaw ku leen gis rek dana bëgg a mel ni yéen kon mu ngi noonu ñu ngi wàcce kàddu yi euh, jox jëwrin Issa ñu noppee jox sëñ maxtar suñu noppee jox ñoom jëwrin ñu soññaat ñu sëñ Badal sant nañ bu baax waaw yow it démb rek la ñu daje ñu wax la ko xeebaloo ñu dara mais na la bir ne sant nañ waaw ndax nit lu mu amul lu dul loolu soo ko ci fekk sees kontaan na waaw sant nañ te ndokk waaw lii ñu def jaamu yàlla la yàlla nañu borom bi gën a taxaw jëwriñ xol yi sedd na prési yéen it yàlla yàggal leen te wéral leen ni ma koy waxee ànd ak i gone neexut waaye nag yàlla baax na ay gone yu bëgg lu baax lañ kon lu ñuy gën a yàgg rek di baax li sëñ bi naan ñu yàgg baax yi loolu du waxu neen kon nañ ñaan yàgg rek waaw lu ñuy gën a yàgg rek di gën a baax di gën a nice di gën a ami xéewal di gën a bari sax. jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi di wër fi di ànd ak wér di ñaanal baax suñu kilifa. santante bu buñ dajee rek nañu santante nañ ñaanalante nañu biir ni sëñ baa ngi suñu biir waaw foofu nag lay tàmbalee ndax nit bu dul wor bu dul wax boppam dëgg mënul wax keneen dëgg nañ nangu wax suñu bopp dëgg ndax bu ñu jàng xasida xasida waxi sëñ Tuubaa la kenn mënut a wax lu ëpp waxi sëñ Tuubaa kenn mënut a wax lu gën a neex waxi sëñ Tuubaa kenn mënut wax lu ëpp njëriñ waxi sëñ Tuubaa te yaakaar naa ñun ñëpp murid yi buñ doon dox ci mbedd sax dégg nañ nii bu ñuy jàng xasida ñëpp teewlu loolu dama koy dagaan ñëpp rek ndax buñ ñëwee namante gi ak bëgg nuyoo gi day am dañ koy comprendre ndax da gis bëgg gis Moodu gëj ko gis namante gi saafonte nuyoo murid waaye ñu jàppale ñu rek bu fekkee ne tàmbaleeguñ loolu mënees naa ne. buñ xasee ba tàmbale nañ ñu gaw nañ ñu wër. nañ toog wër na gis nga samfaal bi bi mu buñ tàmbalee kenn demul wax fee di waxtaan ñëpp dañoo ñëw. jóg ñu samfaal mu mu mu jàll lool. ñu xam ne ñun tamit dañuy sonn ci répétition yi. dañu ñëw fi bëgg a jàng liñ bëgg a yéene jàng yëpp duñ ko jàng. niñ ko bëggee ak ni mu ni mu demee duñ ko mënee noonu. boo ko boo ko boolee nag boo bëggee jàng bëgg ki nekk sa ginnaaw ëpp la baat. day metti da ngay génn njàng mi yenn saa yi dugg wala boog sa xel loolu daal dama koy dagaan murit yëpp bu jaree sax bu président falee ministre ministre day jël arrêté parce que dañ maa fal jëwriñ damay jël arrêté ñii ñooy jël décret parce que ñoom ñooy jëwriñ man damay jël arrêté parce que dama naan dama naan xalil wala diw taxawal ma fii ku ñëw nga ne ko toog bu seex ñan ak ñaari seex ñang yi naree toog man ko buñ toog buñ toogee dañuy waxtaan na kii dem toog ne kii dem toog na de c'est-à-dire ñu dimbali ñu ne serait-ce que de temps boobu ñu jàng ci xa jàng ko teewlu ko jàng ko bu buñ noppee ñu sanfal ñu ñaan bu jaree bu buñ ne ah kon nañ ñu may sax dix minutes ñu saafonte ñu toog te téye micro yi dix minutes nit ñi saafonte ba doyal après ñu ko ni wéyal waxtaan loo gis rek organisation lay laaj. waaye bu ñuy enregistré ñun nii waxtaan wi dañ ko ciy dégg buñ dem parce que li ñuy jàng nii dañ koy enregistré après dañuy dem di ko dégluwaat. fi ñu fi ñu waroon jàng fi ñu waroon nangam buñ jékki-jékki dégg wax ji ci biir ju bari lu ci bari duñ ko mën a teewul. waaw te liggéey bu bari la laaj. Ah, jàng xasida yombul. loolu laa xamul naa ko naa ko naa ko parce que lu ma metti la nag. wax dëgg yàlla moom man lu ma metti la nañ ñu ci jàppale bu baax. bismillahi rahmaani rahim. allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi wa tasliman wajhil kitaabati yaa shukoori fa waxal ibaadati lak shukoori wajihal lisaani jaakalaki xal bi yaam xam bi dafe wajal mbàkki bi noonu daare ni asalaamaaleykum rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi julli fi teew mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax kenn ku nekk sa ak sant di ñaan ci daraja yi xasida yi Sëriñ Mountakha Mbacké xalifat kullu am bi tarixatal muridiyya sunu borom yàggal ko fi lool ci ànd ak wér man naa lim am ngir bëggal ko liggéeyal waaye mooy tedd yi mu yeggale ko sagoom te ànd ko julli yëpp di ko ñaanal sëriñ Cheikh mun na Fall xalifa Baye Fall suñu borom baax a baax fépp fu am sëriñ Tuubaa fa dara rek na nga ko ñaan ci barke xasida yi di nuyu mbokk dëkk nooyu dégg sunu kàddu yëpp di siyaar baax sunu bàyyi Babacar Seck jëwriñ As sëñ baax a baax di ndokkeel bu baax jëwriñu Omar ci liggéey bu rëy bii nga xam ne nii jox nañ ko ko te muy lu màgg lool ndax fépp foo xam ne nii rek noo fay tudd kàddu sëriñ bi foofee na nga xam ni am nañ tawxiid bu baax a baax am nañu nañ tawfiix bu baax a baax ndax di waral lool mooy kenn dégg na kàddu gu màgg googu sëñ Muntaxa wax wax ni kat maanaam doonu murit moom tawfiix la waaye doon jànkaru xasida aw xaas la te sëriñ Saliou Mbacke yàlla na yàlla doon ay leeram moo wax ni ñuy jàng xasida ak ñi koy déglu mi ngi mel ne ñanaaw ak dunq kon lenn mënta dem bàyyi morom ma kon jëwriñ Issa ñu ngi sant bu baax ci kaddu yooyu nga xam ne yëkkati nga ko mu solo lool gannaaw loolu dañuy gàttal ak baax baax lu xam ni ni ko jëriñ waxee ñu ngi jublu bis bu mag di bis bi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacke day ñëw Ndakaaru mu doon bis boo xam ne murit bu nekk war nga ko waaj baax baax ndax kat moom day na xam ne Sëñ Tuubaa moo ñëw Ndakaaru kon nag lépp loo xam ne waaye mën na ko ci bis boobee na fexe ba na ko ca def incha allahu taala gannaaw loolu nuy nuy fàttali tamit mbokk taalibe yi nii talaata bii di ñëw kenn ku ne xam ne ni mooy màggalu suñu jàmbaar gi Cheikh Abdoulaye Mbacke nga xam ne moom bi mu gënee jamono rek Serigne tubaa dafa digle wax mag ñi ku mën turam incha allahu taala àjjana mooy sa kër nga xam ne wax nañ ni mañ ñi dañ ko doon bind ci miir yi ñii di bind Abdul Ahadi Abdul Ahadi ñu naan déglul ba xam mën naa ko di ko waxante seen biir kon nag bis boobee gis bu jarawaaj la ndax tey jii valeur gi yoonu murit am personnalité gi yoonu murit am Cheikh Abdou Lahad Mbacké moo ko incarné ba am ko li mu ci indi ci moom nag lu gàtt lay doon benn waxtaan woo xam ne moom moo ko defoon 1986 ci soññe boo xam ne da ko doon soññe ci wàllu murid yi ngir sëriñ bi li ko indi ci jamono dama koy indi rek nu nu teewlu ko bu ñu noppee rek ñu doxal incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa mbokk jullit yi mbokk taalibe maa ngi leen di nuyu nuyu bu gën a yàlla ci diggante mbokk jullit ak morom ma sama mbokk taalibe yi yéen nga xam ne yéen laa bokkal sëriñ Touba yéen ñi nga xam ne yéen laa bokkal lislaam maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen sant ci seen teewaay bu mag bi ngeen teew fii fii fii fii sama kanam ngir jëmmi Serigne Touba nag. tey nag damaa amoon yéene ñu waxtaan ci li nga xam ne moom moo fi indi sëriñ bi sëriñ Tuubaa day mës naa dagg dagale mag ñëpp ba ñëpp teew ba nga teewee mu ne leen tey de damaa bëggoon ñu laa wérante biir ndax man day àdduna mosuma tax a jóg àdduna mosuma tax a soxla leen àdduna mës a tax ma tax benn jéego ne leen day lépp lu mu doon def ëllëg a taxoon ma di ko def loolee nag laa bëgg ngeen xam ko bu baax a baax loole mooy buñ demee ba yomal xiyaam sunu borom subhaanahu wa taala dagale malaaka jinne ak doomu aadama ñoom ñëpp ñoo teew sunu borom day mu woo ñi nga xam ne nii dañ leen dénkoon jamono kenn ku ci nekk ñu jox la ab àndaar ne la boo demee na nga duy sa bii àndaar kenn ku ci nekk mu ne la demal nga indi sab àndaar képp ku ci indi sab allah mu buur wax na ni yonent bi saa sam da lay yëkkati ba ci kaw di la gërëm di la gërëm di la gërëm ba nit ak jinn ak malaaka xam ni gërëm na la mu wàcce la képp koo xam ne dangaa indi sab àndaar buur wax na ni yonent bi sam da jël di la tànc di tànc ba nga ne ko man day yóbbu ma sawara sax moo gën lii nga may def mu doog laa wàcce sëriñ Tuubaa moom nee na bis bu bis bu ñu demee ci bis boobee ba yonent bi woo ni nga xam ne woo na leen buñ tudd turam Ahmadou Bamba wax ne ne moom buñ ko tuddee dafa bëgg jëf joojee nga xam ne yonent yi daanañ ko jëf ay ñoñam dug di ko jëf di ko jëf di ko jëf bañ ne waa ki nga xam ne nii boobee ba tey biñ tuddee turam ay ñoñam ñoo dug di jëf-jëf ji kooku mooy kan nee na bu boobaa ñooy mooy Ahmadul Xadim Serigne Touba nee na baat boobu rek moo taxoon may sonn baat boobu rek moo taxoon ma dem ci géej gi baat boobu rek moo taxoon ma dem gànnaar baat boobu rek moo taxoon may sonn ci ab àdduna kon képp koo xam ne nii dem nañ ba foofa bokkoo ca ñooña na la leer ni féetewu ma fenn na la leer ni féetewu ma fenn na la leer ni féetewu ma kon nag ñun murit ñun taalibi Cheikhul Xadim li ñuy may loolu mooy ñu sax ci jëf yi ndigal tey bàyyi tere ndax ndigal day daawutug yoon eh, tere tamit daawutug yoon te yoon woowee ñaar rek lay doon képp koo xam ne teg nga ci yoon di nga dox ba daj dëkk di nga dox ba daj nit te képp ku teg ci yoon lépp loo yor su ma danañ la ko jox waaye képp koo xam ne da ngaa jaar ca ñàll ba ñàll boobee di nga dox borom bu dëkk te doo ko gis. ngir ñal gaa nga jaar te lépp loo yor su waddee ca ñal boobee kenn du ko for wala sax buñ ko foree kenn du la ko jox kon nag maa ngi leen di digal na ngeen tegu ci ndigal te bàyyi tere wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf. Mbàkke yàlla na nu doon ay murid ay dëgg dëgg daal ay murid na ñaan beer mu def na waay mam mu def na mu alhamdulillah ay bagaan te di la xaaraan ak kañaan bamba yóbbi sa xol amul kañaan ko gis defar ko yërmande addiye sëñ Cheikh bi jërëjëf eh, waaw eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, tey as dafa naa ma lay ji ko wax am nga wax di ma jox mais tey jël naa micro bi sotti ci ak def la maa ngi nuyu ñëpp ku ci nag turam ak santam ginnaaw bi ma euh, jiite lay nuyu woo xam ne moo koy teg ci loxo jëriñ aas mu nuyoonu sunu sëriñ alaaji Cheikh Oumy Mbacke Falilou di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal bépp njabootam bàyyiwuma kenn ñii ñëpp ci njaboot gi lañ bokk di dolli cant rek euh, premier point bi ma bëgg a mooy li Issa wax sànq sax fi tafu naafu di calmer ay waxtaan ndax li mu wax lu am solo la ndax euh, xasaay di moo kaamil alxuraan bi benn la ndax sëñ bi da ko cay jukki daa ñu koy layal pour ñu bari mën ko comprendre ay ñaan lépp a ngi ci biir lu waaye bëgg mu ngi ci biir bon nag yaakaar naa bu ñu koy yëkkati ñëpp dañu war a dal surtout temps bi mayewu ko 6 heures la ñu commencé daal di wàcc 7 bon nag ku ñëw ah ay la yuween boo yoru sa kurus di def salaatu ala nabi bu waay mën boo mën walla nga def ay lixlaas ci ñaan wala nga noppi loolu mooy gën ngay wax ko waxtaan man nga jaxase ñi nga xam ne ñooy yëkkati comme ni ko Issa waxee day faral di def ay enregistrement pour bu ñu ba bu ñu demee mën a tegaat loolu seen seen audio mën ko déglu ah mën a càmbaraat li ñuy def lu ñu war a gën a neexal neexal ko fu ñu gàggee ñu xam ko et cetera kon nag loolu dafa am solo te li ñuy liggéey ñoom ñun lañ koy defal waaw ñun lañ koy defal. maanaam mi ngi mel ni ku bëgg a wax ba gis ko lay waxal nga war a noppi tu dëgg amin rek la ñu war di def donc ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér di leen ñaanal kàttan yéen waaye kuréel gi nag kuréelu fédération Daaratu Salaam mu son mu gën a yaatu gën a neex te loolu ci kanam la jëm incha allahu rabbi deuxième point bi information la euh, ndege ñi àjjuma ji passé ba ki démb heure bi sax defe naa ñu ngi ci yoonu jóge Touba di ñëw sëñ bi moo ñu woon sëñ As sëñ Omar Gueye ak man ak Seydou si ñu war a def benn mini de bu ndaw pour préparer journée culturelle bi mu namoon ci aussi benn point mooy sas fi université de Dakar université de Touba. bi nga xamee ni temps yëpp ñu ngi leen ci doon soññ mate woon na sëkk ba tegal mu teg ko di xaar xam nga dañ leen waxoon bu koor gi weesoo ba am fukki fan waaye moom moo ñaan dérogation sëñ bi parce que loolu da ko ci sumboon xaar ba ñëw mu bu ne preuve ni dama bëgg bu ñu defee CRD ba pare waxtaan ci li ñuy war a waxtaan ci journée culturel dama bëgg ñu ànd dem yóbbu. jébbal sas yi loolu ñu fa guddeel kon nag bañ toogee ba julli tàkkusaan la ànd jiitle jëm kër sëñ Abo dafa naan vidéo yi am na ñu ko gis Omar Gueye test na ko ñu dem jébbal yi cinq millions yi mu lubatiku ni sëñ Abo dama bëgg nga ñaanal njaboot gi yëpp ñii nga xam ñoo jiite fédération ak ñi ne seen ginnaaw bu kenn des ndax ay jàmbaar lañu jëkk na sase ñu indi woon cinq million mu sasewaat ñu indi waat lu lu mat ba tegal kon nag loolu ñun dañ leen koy delloo retour di sant di ñaanal ñëpp kàttan xéwal bu saawoon baawoon pour bu amee une fois ñu tegal defaat sas boobu ba mu tegal na sëñ bi dafa kontaan bég bi ñëwee dafa ne kontaan naa de dama bëgg nag ñu ànd dem yóbbu ko xam nga mën na ko yóbbu. ndax ñun dañ ñee euh, euh, ndigal jëfe rek waaw ba ñu jëfee rek mënoon nañ ci génn taxaw fee mënoon na def li muy def duñu njëkk waaye daf ñu xaar mu ñëw boobu cër la bu mu defal fédération bi ni doom bëgg ñu ànd yóbbu dafa na ko daawaati jéeg mais ngeen ko encore waat kon nag loolu mu nekk information boo xam ni détail ngeen xam ni sëñ bi fàttuñu benn yoon saa su ne mi ngi nii day gars yi jàmbar lañu ba ci suukaru koor gi ba defe naa defoon naa ko audio ni dafa ne gars yi jàmbaar lañu dëkk bi xam naa nu mu demee waaye jàmbaar lañu mu ngi ñaanal ñëpp ak yokkute fu waay nekk rek del wax amin mi ngi ñaanal ñëpp ak yokkute point bi ci des mooy euh, lu jëm ci journée culturelle bi dañ ci waxtaan ndax dañ ci woote ay réunion mais sa si génn na ku yëgul woon ku yëgul woon na nga yëg ni sas yi ay axlu yi lañ ko jox képp koo xam jëwriñ ñu axlu nga wax nañ la sas liñ la sas mën na ku yëgul na nga dem sa jëwriñ ne ko lu ñu sas mu demee wala jëwriñ bi war na wootee xool ñoom ni ñu tooy seen bopp ji ndax ba dajale seen sas sas tam ñu ngi prévoir le 17 juillet parce que le 23 la le 17 juillet bon une semaine à l'avance bu ñu sañoon lépp mate waaw bu ñu sañoon lépp mate loolu daf ci am solo nañu di teel a yëngatu bu ko defee sëñ bi gën a xam fi mu féete lépp dina baax sax waaye ñuy teel a yëngatu ndax loo xam ne bettu la at mu ne mu am xam ñëpp xam nañ màggal at mu ne mu am journée culturelle bu bu jàmm rek amee day am bon nag ñu war nañ koy waajal saa su ne te loolu lu koy gën a yombal nag di nga def ni àddiyee sëñ Cheikhu mi mag ci kees ga la jëm fédération waaw ak àddiyee chaque mois. bu tombeek daayira dañu war a dagg ticket 1000 francs def naa loolu Ansu bi nga xam ne chargé de communication def na ko affiché na ko nañu dagg 1000 francs di ko def ci kees gi lu day ni fédération war na am keesam di am loo xam lu am solo lu ci nekk ba nga xam bu dara ñëwee ñu am lu ñu ci mën a jukki man ci def avance dafay am solo waaw bon nag loolu na ci ñëpp am pas-pas cotisation yi nañ koy def bu kenn fàtte ñëw bi teew bi dafa baax man de maa jël la cinq incha allah dimanche bi ñëw bi ci topp ci benn barak xanaa ne seen président bu ayee bu jëwriñ bu jëwriñ Baye Fallé ayee jëwriñ général ñëpp ñëw bu président ayee itam ñëpp dina kenn du des xanaa am ñi occasion la sax ñi xam ne jotuñu xam kër président ñu dem ñax sedd seen kër président du dëkk waaw yow mën a xam tali bu xonq boo ne fa cëpp ci essence tali xonq boo ne kër Ablaye Diop xaas ñëpp dégg nañ ko fi sumbali di sëy ñun ñoo jàkkaarloo waaw maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di kontaan nag ci ñëw bi ngeen ñëw li ko Omar Gueye waxee rek ndax ñunu neen la dégg nga lii mooy daayira la ndax bu ñu di di ñëw di di di di tase bu ñuy tase dañuy gën xamante parce que xamante ni nii suivi am na ñu xamante ay copains ngi ci biir ay lépp mais dafa waroon nekk lu homogène lu homogène ndax ñi dañ ne booy dem ci nit ñi mooy ñëw ci daayira yi bu yàggee nga gën a xamanteeg nit ñi boo xamantee gën miinante bu nu miinantee gën a jariñante waaw ndax nit ñi dem nañ bay tuddante ay doom waaw bay mayante ay soxna mayante ay soxna kenn mën na jël doomam jox ko may ko kenn waaw loolu lépp nag ci àndandoo rek waaw ndax mbooloo mooy dool la force c'est l'union waaw te mënuñu tasaaroo ndax ñun ñëpp benn bunt boobu la ñu am benn sëriñ la ñu am bu ñoo xamee loolu nag war nañu ànd rek nekk benn say lu ñu yëkkati rek mën nañ ko daaneel gën a organiser wu ndax Issa wax na ko léegi loo gis rek organisation la waaw boo gisee Hizbut yi macha allah boo demee seen mbir doo gis ay ay faay yu bari doo ko mën a gaaw a gis. parce que dañu organiser wu te ku nekk respecté maanaam charte bañ la bañ la tegal nga respecté ko waaw daayira nag teel a ñëw la teel a ñëw bu ñu teelee ñëw ndax ngeen dañuy jëlee timis rek xëy na waxtaan wi xaw a gudd rek mais mënoon nañu yeeyu ñëpp ñëpp dem ndax ñëpp dëkk fi ñu fi ñu dëkk dafa yi ñu nga dem nañ ba tëggeej bëgg na leen ci boole ndax ñoom ñoo ci bëggoon génn seen bopp mais ñi ngi ci biir ndax gis nañ tamit ci suukaru koor bi délégation bañ def ba ñëw bon ñun bàyyiwul leen benn yoon ndax saa su communiquer amee fii ba Farafeñe Sénégal sur l' ensemble du territoire waxuma sax diaspora bi mais Ansu ku ci nekk dina jël téléphone woo la ñu la lii ak lii am na waaw Ansu tam ñu ngi lay gërëm di sant si sa taxawaay di sant tamit sëñ Matar Fall da nga daayira tamit daf ci am solo nga ubbi benn page culturelle ou de for parce que c'est lui qui est le chargé de la formation de la commission culturelle te li mu def nii jukki boobu mu jukki formation la parce que na xamul loo xamul loon saa lu nit xamalee loo xamuloon rek am na ci lu mu la defal ci formation bu na def ci am solo waat gaxtaan lu mu am même cinq minutes nit mën na ci jële lu am solo waaw bon nag maa ngi wàcc foofu kàddu yi ndax euh, dañuy euh, li li li duuf ci cin li yëpp li li li lan li duuf ci nag bi yëpp xaju ci cin li waaye man damay jël li gën a neex ci nag bi def ci cin bi waaw bon nag asalaamaaleykum wa rahmatulah barak ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam te di ko fay ci santam di ñaan nag kuy dégg sunu kàddu rek nga wax ne Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool ci wér suñu am yàlla ko fi sunu borom yàggal lool te wéral ko alaaji sëriñ Seexu mi Mbàkke yàlla ko sunu borom yàggal ci barkeb Seexul Xaddim noo ngi nuyu bu baax waa daayiratu salaam di ci jiital jëwlin sëñ juuf ak jëwrinu Baye Fall yi di sëriñ Omar Gueye ak président fédération bi bu baax di la siyaare sëñ Issa sëñ noo ngi leen di siyaare bu baax a baax ak mbooleem ñi nekk ci daayira bi yépp suñu bëggee lim rek mën nañoo bañ a matal manees naa bañu a juum sax waaye mën nañoo bañ a matal noo ngi bég nag bu baax ci liggéey bi di sant bu baax a baaxit ci liggéey bi sëñ Omar yow mi nga xamante ne yow la dongo yi fekk si noo ngi ñaan fekk si gu ñu gii ñu la fekk si yàlla na doon sa yokkute yàlla na doon sa taw feex ci dara jay Seexul Xaddim barkeb sëriñ Falilu nun nag sunu xol sedd na bu baax a baax li tax nag suma xol sedd mooy kàddu yi ñu fi jot a dégg muy kàddu yu am solo yoo xamante ne kàddu yi soññante la ci seen biir ngir lan liggéey bi ngeen di liggéeyal sëriñ bi te liggéey bi ñuy liggéeyal sëriñ bi damay faral di wax ne nun mooy sunu alal te nit nag bu fekkee ne amut lu dul lenn war na koo téye ak fukki loxoom te nun amuñu lu dul liggéeyal sëriñ bi kon buñ toogee dégg leen ngeen soññante soññante bu am solo bii ak soññante bii nga xamante ne lépp dara génnu ci sëriñ bi sunu xol la ciy sedd bu baax a baax ndax li ko waral mooy wolof day wax ne ku fekke ba ñuy sox buñ teqee doo daw te yaakaar naa ne fekke nan lu bari buñ fekkewul lépp it fekke nan lu bari bu yàlla dogalee nag ban dem ba toog ñuy soññante ci sëriñ bi soññante bu am solo bii di soññante ci sëriñ bi soññante bu am pas-pas bii sunu xol day sedd looloo waral sunu xol sedd te lépp dara génnu ci sëriñ bi kon nag noo ngi ñaan ci dara géey sëñ Touba mi nga xamante ne amuñu lu moom yàlla na sunu borom téel boppam ba liñ bëgg jëfal sëriñ bi yéene koo jëfal sëriñ bi yépp sunu borom defal nu ci lu kawe sunu njor ci barkeb Seexul Xaddiim lii Omar wax sànq rek lay am ay baat yu may waxaat ngir dëggal ay waxam ndax dafa ne ci suba daa xëy daal waa kër gi de gan yu tedd gan yu màgg gan yu ma fonk ñooy dikk fii ci kër gi muy samay mbokki taalibe sëñ Tuubaa mag ñi dan daan jóge njaareem dox ba gànnaar ngir lan ngërëmal sëriñ bi ba sëriñ Tuubaa wax leen wax ju rëy ja nga xamante ne kat kenn ku ci nekk bëggoon na ko fekk gànnaar muy innal la siina ilaa sarsaara xat xasadoo siyaaratin faaraxu daari naw saara mbooleem ku ma fekk fii ci gànnaar de set nga wecc ci ay bakkaar mag ñi dañoo dem ngay fekk fa sëñ Abdou ngan gum doon gane ngaay sëñ mi sëñ Matar doon waxtaane léegi sëñ am mag waraam ñëw ba ci moom ne ko Mbàkke ñun de dañuy laaj ba xam ina la siina yi laa sarsaara saara jooju sëñ Tuubaa waxoon mag ña ci njaareem ca gànnaar ndax nun ci lañ bokk sëñ laat Lahad waawaaw leen yéen a ngi ci biir dal ñaari taaliba yu bokk kër dendante ay néeg kii génn ci néegam dugg ci néeg mbokkum taalibeem siyaar ko yaa ngi ci biir innal la siina ilaa sarsaara jooju kon tey nun ñoo ci biir innal la siina ilaa sarsaara jooju ndax kat kenn ku ci nekk am na pas-pas bàyyee ak léppam ñëw fekk Cheikh Omar ñu fas yéene liggéeyal sëñ Tubaa kon gan ñu gën a màgg loolu amul li nu ci sëriñ bi faye tamit jar na ñu sol ay dàlli weñ di dox ba mu xar beneen bi ci tegu mooy dafa am ku ma sa laaj sëriñ Seex Mbàkke ne ko ndax yoonu murit dina daj jamono sëñ Seex ne ko dina ko daj mu ne ko tax ana ana ci banaanam la koy daje mu ne ko ci débat ak daayira débat mooy waxtaane sëñ tubaa daayira mooy li nu def kon nag luy doxal yoon wi ku ci nee rawatina nga nekk ci ci ndigal war ngaa yokkaat sa laxasaay war ngaa yokkaat sa pas-pas dafa am waajtaayu Kazu Rajab gu ma sa jot ñu jóge fii dem Gàmbi man ak sëñ Asmi ak sëñ Muudu Ba ak sëñ Abdou Wadd boobu kon jamono melut nii boobu kër gi kon melut nii ndax fii lañ jóge daggaay paas dem Gàmbi defari carte barkeeloog sunuy pexe ngir waaj màggalu sëñ Fallu kon demewut woon noonu nii biñ demee ba Gàmbi ma taxaw di wax dal di nettali xise bi am góor gu ñëw ba ci man ne ko bi ko bàyyi fallu ci am di laaj sëriñ Cheikh Mbacke maa ngi toog bi mu koy laaj sëriñ Cheikh Mbacke maa ngi toog daal ne ma li nga wax lu wér la kon nag loolu ku yàlla dimbali ba nga nekk ci war ngaa yokkaat sa laxasaay war ngaa yokkaat sa pas-pas war ngaa yokkaat saw doxin ngir kat luy doxal yoonu murit képp ku ca nekk na la wóor ne la yaa ngi ci mbégum sëñ tubaa yaa ngi ci mbégum sëñ tubaa te bu nekk ci mbégum sëñ tubaa nag saa boo dajeeg sëñ tubaa di nga xam ne nekk ci mbégum sëñ tubaa rek am solo kon nag noo ngi santaat bu baax ci jotaay bi di ñaanaat bu baax yéene gi ak pas-pas bi ak bëgg gi yàlla na ko sëriñ bàgg sëñ Omar noo ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax ndax gis nañ taxawaay bi ak pas-pas bi ak yéene gi ak bëgg gi te jëmmi sëñ tubaa rek tax noo ngi ñaan ci dara jëy Cheikh Ibrahima Fall sa yéene yaa mbooloo mi yépp yàlla na ko sëriñ bàggale àggale ci dara jëy Cheikhul Khadim noo ngi wàcce kàddu yi foofu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf ku si nekk ñu ngi lay nuyu sa ak sa sant daanaka ña fi jiito ña jiitu wax yépp lan wax yépp maanaam lu am solo la kàddu ga njëkk a jëwriñ Omar njëkk a jël sëñ mataa topp si président topp ak Bada daanaka ñoom ñëpp wax nañ lépp man nag la may njëkk def mooy damay jéggulu su guddee ñëw bi ndax guddee gi sax moom ndigal si ndigal laa nekkoon rek. ndax doomu sëñ Fall gu suñu yaakaar tey ëllëg moo fi ñëwoon tey suba si amoon ñaari sarax yoo xam ne suñuy mbokk taalibe seen waajur jigéen ñoom ñoo wàcc liggéey kenn ku ñuy wax sëñ Habib Niang Habib ñan moom la waajuram wàccoon démb kenn ku ne ndey faatu gasama moom mu ngi dëkkee Kër ma Massar këram ak kër bàcc ndooy sorantawuñu sëñ bi ñëwoon si sarax si suba si la fi ñëwoon woo ma ne ma maa ngi ndakaaru nday gas nday faatu gasama waajuram moo moom bu jigéen moo gaañ tey la sarax si ak Habib dem këram ñu ànd fa dem njëkk si Habib continuer dem kër Massar ba mu jógee noonu la aw dem ñibbi ma ñëwaat Pikine am takk gu ma demoon sama koñ fii Séridis mooy fa ma doon defee sama jàng yi loolu moo war a bi ndax bés bii ak sant yàlla la ndax ka moom yi liggéey bi muy muy jëwriñ koo xam ne maanaam kenn la si biir njaboot gi bëgg loolu liggéey bi doon koo xam ne maanaam sëñ bi am na fu mu ko teg te mbooloo mi tamit am na fu ko teg euh, mu doon jëmm joo xam ne am na yar am na teggin am na sutura am na worma te loolu la ñuy doyee doomu aadama sutura ak yar ak teggin boo ko amee rek am nga lépp ba pare yoon macha allah xelam rafet na te ñëpp mun nañ ko partager mun nañ ko séddoo kon yàlla la yàlla lafal cat suñ borom defal la tawféex defal na ko ñun ñëpp ndax liggéey bi kenn moom ko Cheikhul Khadim moo ko moom. Cheikhul ndax damay fat du wax ni moom la ñuy suñ borom booleel mu doon koo xam ne maanaam fonk ak njabootam bëgg ñëpp. mais rawatina ñàkk suñu borom booleel keroog ban demee Touba président wax na ko taxawaay bi am na solo lool ndax bu ko neexoon mënoon na yóbbu addiyaam ndax ñun lan war ak moom moo ñu dajale suñu addee jox ko ba nga ko ba nga ko joxee pare nañ si mais ak baaxam ak oyofam moo tax mu boole ñu si leneen la sa tege tamit mooy sëñ Issa wax na ko muy si wàllu liggéey bi. ndax bokk naa suñu doon wax ñu ngi koy jégalu bu baax a baax ndax eh, xasida dafa nga koy jàng ngay wax yàlla rëbb na la te lan doon wax waxu àdduna dong la suñu waxu bopp la kon ñu ngi koy jégalu bu baax a baax di ñaan beneen yoon bu ñëwatee dinañ toog déglu teewlu ndax ñiy jàng ñii di wax bu yàggee day réeral ñeneen yi wax sa boo koy wax sa kenn di wax sa wet rek réer nga kon ñu ngi koy jégalu bu baax a baax ndax lii mooy ak ànd ànd dañuy soññante ndax leen bokk mooy dëgg leen bokk dafa doon dëgg doon ay tappale dëgg la ndax sëñ bi damay faral di dégg ne ñaari nit ñett nit ñu toog di waxtaan ak sëñtuwaa Tuubaa mu ngi seen biir te man loolu laa gëm ba ma ko waxee ni maanaam Omar moo ay daara mu ne Omar ma mën a koo jëwriñ mu ne ah daayira jëwriñ da xanaa dina neex ma ne ko waaw ma ne ko dafa am ku ko joxoon sax làmp mu ne ma ban làmp ne ko làmp ñi ma nga ko joxe ne dafa am mujjee gàntal ne dafa nekk si liggéey masaalik moo tax jëw jëwriñ oma jël daayira bañ daayira bi maanaam saaw moo tax mu jël ko mu ne kon de jaay jëw jëwriñ dina neex ma ne ko waaw dina neex kon nag yal nañu ko suñu borom fayal kër gi Omar nekk nga xam ne fii lay yeewu ak quartier bi suñ borom boole ko njaboot boole ko tamit waa kër gi boole ko soxnaam yàlla na suñ borom defal jàmm yokk xéwal bu baax a moom daal euh, jëwriñ bëgg nañ lool plaisir wax ji am na solo lool bëgg nañ Bada Ñang moom euh, du ñaar du ñett du ñeent moom kenn la ndax moom ab murit la Sëriñ Tuubaa la bëgg ndax fu mu ne ku ko xamul sax dangay jàpp ni sëñ Cheikh mooy sëriñam si sëñ Cheikh bi mooy wasalaam da fekk ne maanaam euh, sëñ Abdou borom dër bi la yaakaar moom moom moom la yaakaar tey xalifa sëñ Abdou borom dër bi moom mooy sëriñam mais amul lenn loo xam ne maanaam waa kër sëñ Fall ñu ngi koy def te ba da ñëw si ànd ak ñun kon yàlla na ko suñu borom defal jàmm yàlla na yàlla yokk xéwalam bu baax a baax. bég nañ lool kontaan nañ. comme président ko soññee rek gars yi soññee ko mooy si journée culturelle Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké bi journée bi nag suñu journée lu ñëpp le 23 juillet la jàpp leen ko leneen tamit damay wax ni maanaam daayira bi na ko gën a fonk ndax am na ñoo xam dañuy ne yëguñu ko mais dañuy ñëw jege ansu mu dugal leen si panel bi lu xew ñu koy dégg ndax dafa loo xam dafa am solo sëñ bi xew la say mbokk taalibe ñëw toog wax seddal la say mbokk kontaan loolu dafa neex. loolu rek dafa neex kon nan leen liggéey bi nii la demee kenn moom ko liggéey sëñ Tuubaa la damay ne liggéey sëñ Tuubaa kenn du si génn kenn ndax ka baax sëñ Tuubaa moo ñu ko gën a xam wante kër gi nag ñoo ko moom na koy organiser kër sëñ Cheikh mi ñoo ko moom mais da nga koy organiser organisation bi nag lépp ay waxtaan la waxtaan mooy indi lépp kon yàlla na ñu yàlla may topp ak dégg de sant Sam Seexu naa jóge na fi. Sam yow tam na ngay ñëw si liggéey bi ndax ñëpp ñëpp la xam booy dem booy dox di dem rek dañu xam kii alalu sëñ Cheikh mi la te amoon nga taxawaay bu am solo goo si goo doon taxaw si liggéey bi te ba tey am nga si am nga si taxawaay mais nag ñëw di ñëw nit yi di la nemm di la xool di la gis dafa am solo waa penc mi Cheikh ñan ñaari Cheikh ñan yi Bàcc Ndoy Assane Fallou Faye dangeen ñëw si liggéey bi ak Fallou Gueye da ngeen ñëw si liggéey bi doon ngeen di ngeen ñëw sax mais da ngeen gën a ñëwaat si liggéey bi ñu gën a toppaat liggéey bi ndax lii ñuy def moo moo moo ñuy dundal ndax ku si nekk ñaan nga yàlla am bés njaboot gi ñëw ñëw taxaw seedal la wax wax waxal la lu rafet ndax loolu dong moo moo am solo quoi. Samba waaw gaa yi Baye Fall ñoom ñëpp Abdou moom tam waajuram bu jigéen moo wàccoon at àjjuma euh, alxames ba la paase waajuram bu góor astafurlah dina ma rey de waajuram bu góor sëñ Moodu Ba moom moo dëkk si Kafa mu di bàyyi Sidi di bàyyi Abdou mii moo wàccoon alxames ba paase ñu yóbbu ko Touba àjjuma doonoon saraxsi fédération Daaru Salaam ànd ak président Omar ak yenn mbokk taal bi ñoom Moodu Xalil ak sëñ Moodu dem taxaw fa taxawaayu fédération Daaru Salaam jaale si turu fédération Daaru Salaam mu doon loo xam lu acte bu am solo da ñoom ñi si benn côté bi seen yaay sama man samay samay samay samay kii lan samay cousine lan waaw kon nga xam ne maanaam fu ne nekk keroog ba ñu dem sa maa ngi ne président maa ngi dem foo xam ne de samay samay samay jàmm dong laa fay fekk kon yar na yàlla defal defal ñu jàmm di sant njaboot gi Omar di sant waa quartier bi bég nañ di sant di sant tamit sëñ Sambay ndax waaw ndax maa ko sëñ Sambay damay faral di wax ni damay damay faral di wax ni àdduna àdduna ku bañ a réer dangay ngay déglu sëñ Abdoulaye di déglu sëñ Sambay ku bañ a réer booy déglu sëñ sëñ Abdoulaye ak sëñ Sambay doo réer ñëpp nañ mun na waxtaan mais ñooy seen fasaa wax dafa yomb boo bu ñu waxee rek di nga comprendre lu ñu bëgg a wax waaw moo moo tax ma ne àdduna moom ndax sëñ Abdoulaye lii ñuy dund yëpp sëñ Abdoulaye la. te màggal nga mi talaata la yal nañu ko suñu borom fayal si barke Cheikhul Khadim ensuite bëgg nañ kontaan nañ ñu fexe daal ba lii moom dimaas bii di ñëw comme sëñ bi mu defee nag ba sa topp presi na bu aayee ñëpp war a ñëw président na ko Omar yëglee nii yow tam dañ koy yëgle woo ñëpp ñëpp dégg ko la sa des mooy waa Tëngéej ba sa topp waa Tëngéej nag ka yor affaire mun teel a woo waa Tëngéej wax leen ko ñu mun ko préparer loo tam da siy baax ñoom ñu teel ko yëg loolu tam da siy baax ñoom tam ni waaj kun si yëgal daayira daan na ko yaatal dimanche bi passé Ali Baba la woon tey jëwriñ Omar euh, dimanche bi di ñëw sëñ Muntaxa la Masaalikul Jinaan la moom moom moom moom daayira bi moom moom daayira bi beneen bés daf le président la beneen bés daf tëngëj la kon ak sant yàlla bég nañ kontaan nañ yàlla nañ suñ borom defal jàmm képp ku fi indi yitte ak yitte gu nu mu yitte woo yal na ko suñu borom saafara isaa bég nañ Ablaye sa gaa yëpp bég nañ kuréel xasida bi ñëpp bég nañ lii daal alhamdulilah rabbil alamin kontaan na bég bég nañ lool. dañuy santaat bu baax euh, kenn ci ñun damaa bëggoon mu yëkkati kàddu muy sëñ Saam waaw loolu cosaan la aada te li fi ne woon moo fi ne jógu fi di sant sama nijaay mu ngi doog a ñëw gis naa ko ci jotaay bi ak sëñ Ousmane Noreyni nii la rek di wax Ousmane Diouf tamit jaajëf xam nga mbir moom buñ ci nekkee te muy lu baax buñ ci yàkkamti dara ndax sëriñ bi lii rek la bëgg sëriñ bi dafa bëgg ñu bokk ànd doon benn maxtaar mii dama ko yàgg wax ne ko duñ fi wut waaraate kat ndax bu dee benn bëyitu xasida mokkal nga ko mbaa alxuraan mbaa isaa caam mii ku ci nekk ci ñoom mun nañoo toog bis ñu yëkkati benn waxtaan wax ko te bu boobaa mu doon suñu njariñ loolu rek la àndee te lépp a ngi ci suñu biir nag lépp a ngi fi bada kontaan nañ bu baax sama nijaay ngi nii waaw Lamine jo kontaan nañ bu baax sëñ Ousmane ak ñëpp rek gaa ñi saam munul ñàkk waaw mu gàtt mu gudd ñu sànni ci kàddu jërëjëf Serigne Touba jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall ñu santaat yàlla bu baax a baax julliwaat ci yonent bi tedd bi alayhi salaatu wasalaam ñaanalaat bu baax a baax xalifatul am fi tarixatil muridiya Cheikh Mouhamadul Muntaha suñu borom yàggal ko wéral ko ak njabootu sëñ Tuubaa yépp naka noonu itam ak gu maam Cheikh Ibrahima Fall gi santaat itam bu baax a baax alaaji Cheikh mi ñaanal ko moom mu yàgg loolu te wér yéene ji moom itam mu yàggale ko nu fas yéene ko ànd ak moom di sant bu baax a baax tamit mboolem fédération Daayiratu Salaam tàmbalee ko ci président jëwriñ aas mi jëwriñ soxna Daba Sarr ak ñëpp sëñ Matar mboolem jëwriñ yi nga xam ne nekk nañ ci biir kër gi mboolem jëwriñu gox yi fàttewuñ kenn bàyyiwuñ kenn waaye li ñuy bañ a wax ni ko sëñ Bada waxee sànq suñu jëwriñ dañuy bañ a matale waaye xam nañu ñëpp mën nañoo lim ñëpp itam waaye xaju fi di jégaluwaat yi tamit li ñuy jégalu itam mooy xëy na seenu mbaax ak yéene ñu moo tax ngeen ngeen ngeen ngeen feddaliwaat kóllëre waaye ñun ñu ñëw ci ñoo ciy jëriñu ñu ñàkku cee ñëw itam ñun ñoo ciy loroo tooguñu tamit ngir dara lu ñu tënk xëy na yitte yi noo bëri soxla yu bëri ñu engagé wu ay engagement wu jàmbur yoo xam ne xëy na tënkoon nañu te sëriñ bi tam bëggul nuy wàcc yoon rek moo ñu tënkoon waaye liggéey bi mënuñoo bokk ci duma ma ne ñi ko tàmbali waaye ñi ko taxawu ci benn jamono ba mu am fenn niveau bu mu yegg ñool batiku di dellu ginnaaw loolee defe naa ne du du du ful la du fayda te du pas-pas yi tamit kon tey jii la ñuy gën a yeesalaat sunu njébbal tey la ñu gën a yeesalaat sunu pas-pas lan ci mënoon tey lañ mën nañ ci tey lu ko raw te danañ ko si fas yéene taxawewaat nañ ko ci daan taxawee may tamit bokk na ci liggéey bii muy fédération Daarou Salaam bu dimanche bii nga xam ne mooy ndeyu lépp mooy ndeyu lépp ndax sëñ aas xaw na xam na li may wax ndax fekk na ko fi sëñ ba day tam fekk na ko fi ndax buñ ne tàmbali nga fi ne sëñ bee daan toog di maw mawli bés boobu di dund ba tey jii nii nii nii nii nii kon du ay caaxaan kon ku ci ñëwit yaa ci jëluñu ku toogit yaay perte nun nag fas nañ ko te jël nañ ci tamit décision xanaa lu nu yëgul wala lu nu tënk te mu ëpp doole liggéey bii moo nu ciy tere ñëw waaye fas nañ sax dimanche bu jot nii nu ko defee nii indi liggéey bii nu ñëw jël ko dugal ko ndax fii ne kenn ku ci ne la ngam ngay tiitaroo non moom suñu yëf moom la ñuy tiitaroo waaye ñu ko tiitaroo yi fenn fu dut fii nga xamante ni fii lañ fi la fi def foofu kuy daagu da ngay daagu fañ la nabe fii lañ ñu nabe woon fii lañ koy daagu laay waate bu soobee sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatulah ñuy jégalu ñëpp jëwlin waaw kon alhamdulilah euh, santaat nañ bu baax euh, santaat nañ ñëpp rek li may wax gan yu tedd yi ñu am rek moo waral lii lépp kon santaan nañ bu baax kàddu yi fi jip yépp benn mënut a woon ñàkk euh, ñu leen di waxit ak cant goo nga xam ni kenn ci ñun moo koy def muy sëñ mbay mee toog te bokk ci njabootu maam Cheikh Oumy te sëñ Ousmane Diouf mii toog di jëwrinam ñoo koy def fii ci euh, tali bu bees at mu jot nag dañ koy def bañ koy njëkk a def ñoo sëñ beeg jëwrin mi fa àndoon te ba tey bàyyiwuñu te noonu mu tàmbalee woon dem na ba gone yi mu àndal moom it jox ko bopp te li ko waral du lenn lu dul yaram ak tegginam ak tegu ci siraatal mustaxim kon jëwrin isaa maxtaar cant gaa ngi noonu samdi la du noonu bay samedi bii di ñëw la fii ci euh, tali bu bees Baye Galas waaw moo koy présider at mu jot bañ nañ ko ba balaa ñuy jàpp bis bi ñoom dañuy ñëw ci Baye Galas wax ko ko Baye Galas mooy jàpp bis bi kon ñoom ñu ngi ci ndigal kon ñu ngi ciy woo ñëpp murid di Baye Fall yi ñëpp rek jëwriñ yëg na ko it te mbay woo na ko ki démb am yéene bu mu ci bëgg ba waxtaan ceeg moom kon mu ngi noonu président mbay mu ngi noonu sa ginnaaw moo koy def at mu jot dama koy wax seexu buuba la dañoo nuroo Boubacar mu parcelle waaw ci yar beeg teggin geeg ci diine jeeg yooyu pas-pas yooyu dafa am solo ci ñun murit kon mu ngi noonu na ko ñëpp yëgee noonu beneen bi ci toppit mooy ansu mooy communicat euh, kii bi chargé de communication mais képp ku ñu jox daayira man li ma def dama ko royee ci booy bii xalil gis nga liggéey bi buñ la ko joxee na la jaral nga jënd sa crédit téeméer def ko ligne woowaat mbokk taalibe yi rek loolu yàqu ci dara yëg nañ ko yooyu yëpp baax na mais jëlal sa téeméer ndax daayira bi di nga ci def lu ëpp téeméer maxtaar mii boo ko fayoon rek dana ëpp téeméer lay yóbbu bagaasam yi rek ëpp na téeméer du dëgg kon waaw yëpp bañ a fay la te kon waaw kon jël téeméer ak sa mbokk taalibe boo dajeel ne ko dañ maa jox bis bi lu rëy buñ la ko joxee te mu neex te rafet da nga ciy yéene ñëpp nga jënd sa crédit woowaat gaañ yi ñëpp su ko defee gaañ yi ñëpp tamit fasaawaat ko ñëw noonu rek la système la rek te na yaatu ñuy soññaat ñëpp nag tàmbale ko ci man ci laxasaay bi waaw nañu fonkaat laxasaay bi bu baax waaye def ni seex ñang mee rek kenn xamul lu ñuul nga sol am lu bëla waxuma kii nag cuisine laay wax bu ma sañoon ngeen toog ba suba waaw ngeen baal ma rek loolu kese la waaw dafa neex ngaw fi nga nekk say mbokk taalibe fekk si la fa parce que man nag aw ma kuddul yéen ah waaw gis nga ko ñi toog fële ci biir ak fële sama yoon waaye man yéen laa am laa wax waaw kay dañ na leer rek waaw na leer rek man yéen laa am bu ngeen bëggoon ñu toog fi ba suba bu ñu génnee ñu génn dem ci biti toog fa après fu mu yem baax. waaw ci kàddu ci kàddu président maanaam daayira bi képp kuñ ko sasate bu ñu fàttam le cinq bu ñuy ñëw ñu indaale mille francs yi. wajal saxiranaa yu waxirul kabir wajal kabiranaa yu waxirul saxir wajal xul waa taxaftude waa taxafamin waa tadaabude wala tabaaxude waa tanafuri xataa nasira muslimina xaashiin wa muminina a saalixin wax fi lanaa wa aafina bi xaafiya takun fi daare ni xeer aafiya على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارة li لهور دندون سقط عند سرسارا Bienvenue sur Salam Vision.